nekkoon ci baat bi xëyoon génn woon am lu urgent lu ma lijjanti ji woon ñëwaat damaa guddee na maa ngi doon. li nga togg ni lan la. li ceebu yàpp la rek ceebu yàpp bu ne mu rek barka ni lépp ah baax na maa waral baax na kuréel ak lan la ko. waaw ñu ne ñu ne. gars yi dem naa de gars yi dem naa ñu def daal ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax a baax. alors tey lan nga yëg sa xol. kontaan rek lan nga yëg sa xol tey. kontaan rek ndax comme defoon nañ ko daa fekkee déwén dañuy baaxantal. di sant yàlla rek di julli ci yonent bi nga xam ne euh, barkaal danoo kon man daal daal mbay kontaan naa boobu mais daal tey suba maa ngi la doon xaar su ma la ñëpp daal mbay daal fan nga ne woon dama génnoon nag dama xëyoon fajar génnoon fii laa fanaan kër ñoom awa amaa gi fii laa fanaan loolu nekkoon ci baat bi xëyoon génnoon am lu urgent lu ma li jël ci woon ñëwaat damaa guddee nag maa ngi doo nga xool sa bopp sa bool daal li nga toog ni lan la li ceebu yàpp la rek ceebu yàpp bu ne muur rek tubarkaal ku ne xam ne ne ñun ay géwél lan dañoo bëgg ceebu yàpp bu ceebu yàpp mënta ñàkk bu ci kanamee ma siif mbaxali mbaxali bu ci kanamee ma siif ko mënta ñàkk. daal euh, bëggoon nañ xam aussi la moo tax invité woo sa sa sa xarit parce que yow taaliba sëriñ ku baax nga te puis da ngay da dox ci lu baax la moo tax invité woo Tické euh, Laobé ndax bu lépp jeexee jàmm war na mën a am. xam nga man lu ma bëgg nag dëgg fa yàlla ngeen laaj ma ci màggal gi. waaw laaj ma ci màggal maam Ndiaye gi nga xam ne dafa riij ay manaam riij tubarkaale daaneel ay nagam man daal bëgg naa ngeen laaj ma ci màggal gi mais sax dañ doon laaj ne dañ la porte plainte ñu téye moo tax ñëwoon ñu la doon xaar tey gisuñ la ñëpp ne porte plainte boobu moo tax ñu téye la waaw man di ma gis heure bi buñ porte plainte du ngeen ko gis man la dañ ma porte plainte yëguma ko de man de yëguma ko man de gisuma ko plainte jotoo benn notification benn plainte. ah gisuma ko de xanaa yaa ma koy ndil man de gisuma fi plainte maa ngi ni toog xëy naa daal lijjanti ji li ma lijjanti ñëw naa maa ngi ni toog maa ngi ci banay def naa sama bu yàpp maa ngi ñëw tubarkàlla riij mbaxal yi lan ngay lan ngay wax tey maam Ndiaye Savon mu xew li Pikine ñëpp mapp ñëw tay fii fees gis nga presse bi ni ñuy ñëwee euh, tey lan ngay dégg sa patron. waa maam moom bu xewle nii rek la mën a mel ndax réew mi ku ci ne sa xolay sa fii tubarkàlla boo amee lu baax sa xolal la ko may boo amee lu bon it sa xolal la ko may maam Ndiaye lii lii jomb ko quatrième quatrième édition ci màggalu Kazu Rajab lii jomb ko nag moom lii tubarkàlla jomb ko moom xam na ko sax. bi bi bi bi coow amee ci réseau yi. waaw say nit lan lañ la conseillé. waaw li sama nit conseillé nag man ak ñoom la. waaw ah, mais bazar dañu koy wax parce que il faut ñu xam parce que gis nañ gis nañ sa diggante ak Diallo wax ci bëri na ci réseau yi boo waxee moom mu wax du ñàkk ay nit yéen la xam leen la woo conseillé la. non li ma nit di conseil nag sama nit li may conseil loolu entre man ak ñoom la li ma sama nit di conseil moom entre man ak ñoom la loolu du lu may partage ci réseau yi vraiment lu may partage ci réseau yi siif leen na gaaw gaaw damay toog di mbaxal mi de convocation amul man gisuma convocation dégguma convocation gisuma ko gisuma convocation dégguma convocation te convocation defe naa tubarkalla yow mi ñu koy indil yaa ko mën a récupérer dem wuy ji man gisuma convocation. yow aussi dugaloo plainte. non non amul plainte yëf yi jarul plainte jarul plainte. mais daal lan moo ju ñaaw. daal waaw loolu lu fi jotoon a xew la rek romb na fii tey màggal Kazu Rajab rek laay wax tey i màggal gi rek laay wax i màggalu Kazu Rajab gi rek laay wax lu ma waay laaj rek laajoo ma lu dul gi du ma ci doon man jàpp ma dara man musuma jàpp dara man Zale Mbaye du ma jàpp waaye man bés bi moom ma ko ba ko invité borom bés bi na ko invité man moom ma bés bi di man invité dong laa ci bés bi waaw dañ ma may oto nag vraiment may oto aw kay yaa ngi doog a dikk nag kan moo la may oto yaa ngi doog a dikk ku ma may oto ku dul ajatu maam Ndiaye sama ku may may oto ku dul ajatu maam Ndiaye mi ma mayoon barki démb birig bi moo ma may oto preuve ana may leen ma foofu toog may leen lii la ma yeggal dem liggéey preuve léegi tey léegi tey yow guy gi xam nga ci dara <laughs> léegi tey rek oto bi ñëw loolu daal laa bëgg oto la ñu ma may. ma demoon doon jàngi dawal teel ñu. ana borom caméra bi jox ma ko jox ma ko mu jógee. maa ngi doon jox ma ko lool ko jox fii ma ko fekk bàyyi ma bëgg rek waxal ala sa bool ba. bëgg rek jaay jaay. ndawal bi fi ngeen koy defee. yoon. gaañ gaañ gaañ dugal dugal kañ nga ñëw wala gaañ ne nga jaare portugal ñëw ñëw ñëw mooy togg dëxin gi per. ah Saal lay togg dëxin. mais dëxinu Saal waay. dëxinu Saal. dëxinu Payla dëxinu Payla. daaw def nga ko mu neex. daaw. dëxinu am yaama tooñ yaama tooñ. waaw dëxinu Payla xaar leen ma rek. bu am. waaw bu ñu ma may tamit bu leen ma def. mais dëxin lan la war a mel Saal. ayca sama dëxin dina def <laughs> dëxinu Saal. <laughs> dama déggoon da ngaa